Modou Faye laa si gis combat combat gi daa mel ne ndam yi sene ndam ñi dañoo bëgg mu ñëw passé bu soobee yàlla bu ko yàlla defee 2-0 yu gaaw lay doon su ma la ko woowee gëm incha allah. lan ngay conseillé Modou Lo. Modou Lo Modou Lo Modou Lo mooy noo recul noo recul jarul muy reculé na avancé rek dina ko daan bu soobee yàlla incha allah. mais Eumeu Sène mi ngi si forme de. Eumeu Sène ah loolu ay xaañu la rek Eumeu Sène nekkul si dara loolu du dëgg fenn loolu ay xaañu la rek ñun duñu ay ragal de. ñun PA lañ dëkk su war a ko waxee rek gëm nga. PA ngeen dëkk doo ay ragal. du ñu ay ragal bu du ñu ñun nooy noo recul. noo recul waaw su ma la ko waxee rek gëm nga. yaa ngi grand noo def. grand noo def. nice. lépp jàmm. cool. combat revanche bi noo leen koy bëree. combat bi victoire de laa gis. jël ngeen risque de. non jël ñu risque. Eumeu Sène xamal ni lu mu liggéey rek lañu liggéey lu ko raw lañu liggéey waaw lu ko raw rek lañu liggéey. ah yéen tàngu leen. booy naka mu. ñu ne ko. combat bi noo koy waajee. 2-0. foo ko teg. ah. foo ko teg. si Modou Lo. ah. am na benn parfum buy xeeñ ci ginnaaw grand naka mu. sant yàlla bu baax. maa yaa ngi si jàmm. ñu ngi sant bu wér. naka yitte yi. waaw ñu si kawam di góorgóorlu. naka préparation bi. waaw lépp wa lépp pare na. naka moral bi. lépp màcc xel mu dal rek. zéro pression. 2-0 yu gaaw. da ngeen bëgg a kee na yéen ko def mbër. mu jël titre roi des arènes ne yéen rek la singale. dañ koy gën a def mbër. loolu tiitalu leen. dañ koy gën a def mbër. ci naka. dañ koy daanaat. jël bu gaaw. man yéen bi ngeen am man moo ma jaaxal quoi. suñu xalaat dal rek. ëmb ndaanaan la de. waaye ñun xooluñu ko. le roi booy Pikine. gisuñu ko sax xoola ñu ko sax moom mooy calculé ñemewul Modou nag day wax rek mais ñemewul Modou. ñoo ñooy génération xarañ. bu ah. ko jàppee APS koy jaarale. abiyaas bi li ngay jaarale mu jëm fan mu jëm fan Pikine xanaa ñu delloo ko du dugg si otom combat bi day gaaw daal si gàttan 2-0 lay doon day gaaw du taxaw sax day gaaw xaw bu ñekk dañ ko lal dañ ko dañ ko kii dañ ko tegaloon 16 bii dañ ko lalal ba 100 bu nga lalal ba ngay ràccal ràccal bi dañ koy ràccal dëxin bi xool dañ koy ràccal waaw waaw dañ koy ràccal dëxin puuj pàcc waaw waaw daan mu yor benn beeke dañ ko daan mu indi benn beeke bii dañ koy daan mu yor ñaari beeke boobu tànkam moo doon métti dañ koy joxaat dañ koy dolli beneen beeke nga ne yow da ngeen koy ràccal dégg dañ koy ràccal dëxin puuj paaj la ngay tegal puuj paaj men puuj paaj men nee na nee na nag bu ko neexee ñu ne ba suba deux jours ne ko moom ku munta yendu du faraan kay mi ngi lay dégg. déggoo ma de ku mënta yenn du fanaan moo ëmb seen. mais waa Pikine nag ngan di la. non duñ dara. duñ dara xoolal suñ jugee duñ feeñ. barki sëñ Bamba wax lañ moom si combat wax ñoom wax lañ ci moom mais bu dee bëre ñun la dañ koy jàpp daan ko 2-0 lay doon. puuj paaj daal foog mu am. puuj paaj foog mu am. paaj bi moom day am foog mu ko. <laughs> gars yi ñu wax waxi fonde mais mais fii parfum bi muy xeeñ neex na de xet gi xeeñ na la. mani la gars yi ñu ngi yor seen dilian laa la wax di gens bi peru gens la jeunesse cons am am leen tuuti conscience xale yi jeunesse bi dañu am tuuti conscience baax na ci ñuy waxtaan ak ñoom parfois ah nekk jeune nekk ci réew mi nga war a ñafe ñu jur la fu baax nga am papa am yaay am ay mbokk non comportement ñu war ko xoolaat bu baax a baax a baax bon ñooñu. mënuñu ci bañ a wax parce que suñuy rakk lañ suñuy frère lañ il faut ñu gën a conscientiser suñuy moroom suñuy xarit suñuy rakk ndaxte des fois àndandoo mën na la yóbbee ci lu nekk kon nañu xoolaat àndandoo yi bu baax a baax a baax kon mbokk yi mi ngi noonu gis ngeen euh, fële fonde moo fa xewoon diggante Boy ñaa Lac de Guiers ñii nee nañ dëxin puuj paaj dañ koy ràccal Eumeu Sène loolu la ñu wax le roi des arènes nag mi ngi noonu léegi nag ñu dem xool membre staff bi staffu